te président Macky Sall man li ma gëm nii nii fi may wax ak yow nii. xanaa mu changé de mais parti bi bu ko doon joxe Abdoulaye Daouda Diallo la koy joxe. <laughs> non dama ne. Daouda Diallo il fait partie de ses candidats. non parce ah, parce que xoolal xamul. il fait partie de ses candidats. am na ci wax. non xaaral am na lu ci wax. c'est-à-dire Abdoulaye da parti bi bu ko doon joxe moom bu ko doon joxe ah. <laughs> dem dallu ju tuuti. bu dee day liggéey au niveau international. Mm. parce man li ma gëm mooy. dafa am ñaari nit Amadou Ba quoi. non Ba. xaaral ma non non non pas Ba Amadou Ba fan déedéet. Macky cinq mais man xoolal xoolal Amadou Ba. ce qui était mooy moom mu nekk candidat en 2019 dañ ko cee génne. waaw mën naa xam ñaari nit ñoo xamante ne tey APR. à part première dame ak président mi sos parti beeg euh, cinq autres yi. maanaam ah, man li ma gëm. mooy ñaari nit yoo xamante ne bii ñoom bu ñëpp doon bàyyi APR ñoom duñ ko bàyyi à moins que ay situation yu xaw a compliqué parce que politique aussi tamit. waxul dëgg quoi. Ah, man Abdoulaye Daouda Diallo laa gëm. non pas Cheikh Oumar an ak Abdou Mbow. doole ci Cheikh Oumar Anne tam. li ma lay wax nii du sax li ma lay wax nii. non man ilmul yaqin li ma lay wax ilmul yaqin. waaw ma dem ci Cheikh Oumar Diagne. voilà man am problème ci sama ñaari mbokk yi. <laughs> non waxal sa wax rek da nga bàyyi nga rek. non Abou Diallo faw nga génn ci yi nga nekk. génn ci yi nga nekk ak yow. Ousmane sa ñaari. dama dama problème sa ñaari bari xoolal yow xam nga la. xool baal ma 30 secondes xoolal. jël nga tijaan ci ñaari xoolal si ñaari. xoolal kii ma nga cee. c'est-à-dire troisième mandat moom troisième mandat. troisième mandat. xoolal dama lay jox dama lay jox xam nga la moo ne troisième mandat xam nga la moo ne troisième mandat troisième mandat président mënatu koo def et que du ko def. ah muy Zemmour. Zemmour la mooy mooy mooy nga aujourd'hui aujourd'hui le président de la République il a dit. <laughs> Euh. dans l'intimité de la salle par exemple de l'Union africaine. bi ñu ko investir le 6 ou le 7 février je pense je pense en fait c'était le bokk na ci lii priorité en tant que président. de l'UA mm-hmm. euh, de l'UA mm-hmm. mooy fexe ba les pays yi nga xamante ne bii amuñu ordre constitutionnel. Mm-hmm. du rétablir ko. Ah, au delà de la coupe roxal ma daaneel bàyyi ma daaneel ah, ah, léegi da ñi nga xamante ne bii amuñu ordre constitutionnel mais am na ci dëkk yoo xam ne li ko war a lal la mais ay crise post électorale est-ce que président de la euh, la non nañu waxante dëgg rek dina def un mu dem ba 2023 hmm. un an après moom li mu doon wër Afrique di ko prêcher pour jàmm dellu si foofu moom mu ñuy dugal ci ay yenn spiritualité man laa gëm. waaw mais mais mais mais mais quoi le président de la république tamit. doit apprendre de certaines leçons. ma jox la loolu laa gëm non loolu ma jox la exemple ma jox ko benn. ma diggante bi fu am. saa dafa am ci diggante bi avec les événements du mois de mars nga xamante ne la bataille des opinions favorables ñoom dafa am lu bari lu ñu perte. xam nga lan moo sori. tax nga bàyyi xel xam nga la xaaral ma jox la ah, exemple bu leen hmm. fàttali dañu génn ci élection présidentielle ak hmm. ay contentieux. Hmm. yoo xam bu du woon xalif. mais bokkul xaaral ma ñëw. xam nga te te lii ne woon contentieux bi mooy d'abord parrainage bi nga xam dañ ko teg. ñu jàpp ne filtre la bu tegul ci yoon. loolu su may wax ordre constitutionnel. dama ko dugal ci panier boobu. vidéo wuñu ko. pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal am dëkk yoo xamante ne attention Mansour xaar ma wax la dara <laughs> bul fàtte dara hmm. pour la première fois ñu dem ci ay élection yu ñu génn hmm. quatre autres candidats yu bokk ki gagné hmm. ni ñoom reconnaître ñu nit ki bindu ko xaatim ko ñu doon xaar dafa ndànk dafa ndànk ah. ñu ñu wane ñu wane ñu wane la cap ñu wane la cap ni ñàkk ko nangul ci seen dégg-dégg mooy ni dañ ko nar a combattre ngir woon ko ni anam gi nga jotaawet sa deuxième mandat mm-hmm. teguwul ci yoon d'accord lan moo désamorcé loolu bu ko fàtte ah, xam naa c'est les religieux les régulateurs religieux soo rappelé en l'occurrence Serigne Mountakha qui egsi woon position ah. bi mu demee Touba ci la wax ji jeex mm-hmm. xalif bi devant tout le monde mm-hmm. mun na ko lii lii lii lii soo était pas ça attention dañ doon dem ci instabilité boo xam poste électoral loolu laa wax léegi dafa am dafa am jàpp ni moom moo war a moo doon garant suñu euh, suñu suñu charte réew moom la ñu mu doon jonganteel jàpp que ni moom moo dàq jalgati ko bu wëraatee Afrique ni man. man gëm naa man li ma lay wax. xëy na ko gëm li ma lay wax nii li ma lay wax li ma lay wax nii Pa Ousmane. mooy li ma gëm man mooy troisième mandat troisième mandat. troisième mandat dañuy jeexal. ma des bëgg naa am ci schéma la bëgg jox mooy. gis day joué maanaam buy jox. amoon na cinq majeur mais man <laughs> waaw. numéro un Amadou Ba. Hmm. non xaaral ma ñëw Matar Cissé. Hmm. <laughs> Abdoulaye Daouda Diallo. Hmm. Cheikh Oumar Anne. Karim Wade idée ngil jéem a positionné mais mais mais mais mais Macky du jox koo xamante ne bi il n'est pas APR de souche. tous les anciens camarades de Macky Sall. ñi ñi formé APR. moom la ñu àndal ñu wax la ko ñu bañ wax les Mbaye Ndiaye les Cissé Lo. les Moustapha Diakhaté. ma jaay xanaa barki démb lañ juboo ñoom ñaar xaaral ma ñëw rek Amadou Ba. Matar Cissé <coughs> tous ceux qui sont proches de la première dame Matar Cissé la ñuy jàppale. c'est c'est ah. c'est pas le parfait wër première dame ñëpp ñooy attaqué Amadou Ba di ko saaga. mooy booy jeune communicant yi ne woon ay journaliste patron de presse yi Mariam débauché. gisoo ñoo doon attaque mooy lay yaa xam mbéy mi. ñoo doon attaqué Ba. Fouta. les hommes d'affaires qui ont soutenu Macky Sall dañu am seen candidat. Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Oumar foo bàyyi ki doon ki ko financé en 2011. Ah, Arona Dia Arona Dia Arona pas candidat mais il va avoir ses attention am na lu soppeeku ci diggante bi de. <laughs> waaw nekkul am na lu xew ci diggante ah. ci affaire Blaise Compaoré. am yeneen i bagage sax. poids ba new fa. donc ñii. Eh. koo il fera.

alliance ba turu mouvement ba alliance boobu alliance ba def vraiment def lii léegi moom laa dama ne bu coalition bi la waaw léegi nag foofu waaw am na ci waaye bu boobaa aujourd'hui moom laa ne moo tax ma ne la kon maay ñoom ñoom ñaar maay nekk ak ñoom ci côté yooyu chaque fois bu ñu se lever sujet parce que kii wax na loo mi si utopie hmm. référendum bi. Ah, attention no kii wax na lu utopique. non loolu loolu man man ci man c'est de l'utopie. d'accord beneen si va kii wax nañu. Hmm. Euh, man damaa ja benn instant sax dama defoon day seetaan dessin animé. li <laughs> muy wax bay Sidi Abdou Mbow. dama defe day se day seetaan de seetaan. parce que xam nga man ba léegi waxumaan il va hériter du pas dama ne. bu dee am na ñaar. non faut pas traverser mes propos. sorti deux éléments hors du commun. déedéet hors du commun dama ne ñaar ñoo xam ne. non mais c'est-à-dire yow yaa ngi déglu mais suivre. non maa ngi leen di suivre c'est que maa ngi c'est que déglu naa maa ngi suivre parce que li tax ma suivre ne nii man xam nga Abdoulaye Daouda Diallo bi mu suivre mooy mooy mooy ci ñi mag waaw léegi li may même ma lay wax ni c'est du béton xoolal du béton la. soleil soleil da dem di feeñ guddi xam nga buy tax maanaam man ñëw gi ma non déglu ma nag en tant que citoyen. journaliste sàkk guddi dafa nekk. oui ma déglu ma. le soleil c'est bien pour le jour. abo abo mën naa nekk soleil xëy ma dem liggéeyee France 24. waaw ña formation xëy dem CNN xëy dem BBC Afrique. donc génn sa man côté boobu li ma wax ñoom man temps bi ñuy def ci ñoom. laa dul concentré wu xam nga lu ma gëm. mooy di leen def temps di leen jox temps. waaw mais parce que c' est les acteurs. waaw bàyyi leen ko waaw bàyyi leen ko mu wax lu mu Abdou Tam foofu leen ko mu wax lu mu xalaat waaw bàyyi leen ko mu wax lu mu xalaat léegi ñoom niñ à dire ñu nappee ñoom. abu abu d' accord léegi on perd pas de temps ci ñoom léegi. léegi li ma wax Cheikh Oumar Diagne dama gëm pas Cheikh Oumar Diagne c' est que pourquoi. pourquoi c' est que Sall mooy kan. le président de la République laa wax dafa am benn discours bu ma dégg keroog sànq Abdou Macky Sall mooy kan. Hmm. ba ñun ñi defoon force vive de la nation yi. soutenir ñu ko woon. ndax moom président Macky Sall dafa am programme bu baax. Mm. nit ñi xeexuñu ko woon wala deewaluñ ko c'est parce que lii ak parce que c'est parce que Abdoulaye Wade voulait imposer quelque chose en ayant un bilan. Mm. ok ñu dem xeex mu Benno Bokk Yaakaar ñëw mu toog. mu def mandat am deux mandats am def déclaration.